gis nga yi ñu indi ci tamxarit fukk la ak benn boo ko toppee dana dem ba fukk ak juróom fukk ak juróom yooyu <coughs> benn moo ci nekk sunna ci li yonent bi jàngale mooy woor juróom-ñeenteel ak fukkeel ci biir yi ñu digle am na ca yoo xam ne bidaa bu fës la waaye am na ci yoo xam ne boo doon xool sax danga nga naan lii yëfi dof la bokk na ci ma expliqué sànq xam nga lu mel ni dagguwe baax na waaye bés bi ñu ko jëmmalal ba def ko waajib moo ko indi ci caaxaan sangu bi sangu lu baax la mais sangu day am cause cause bi boo ko tegee ci tamxarit ki yàlla yónni jàngalewu ko kon loolu moo tax ñu naan bidaa la beneen bi xasbunallah wa ni'mal wakil ñaan la waaye ñaan bi lañu ci tënk pas-pas bi ñu ci teg ak waxtu wiñ ci teg ak julli giñ ci def ki yàlla yónni xamu ko boo yeewoon Umar ibnul Xattaab ne ko yoor yooru tamxarit am na julli goo xam ni nit ñi dañuy toog ci pénc yi naan xas xasbunallah wa ni'mal wakil juróom-ñaar fukki yoon kenn ku nekk commencé jàng ñu koy ñaanandoo ci mbooloo Umar danaan lii kañ la xew te Umar diine ji gën ci diine ji waxtu wa mu gënee ca la ko yàlla indi yonent bi gërëm ko yàlla gërëm ko boo yeewoon Abu Bakar xamu ko waaw lu Umar xamul Abu Bakar xamu ko ñi gën ci xeet wi xamuñ ko ku ko indi war ngaa xam ni bidaa bu bir la ndax diine moom luñ ciy def di ca ut tuyaaba ci yonante bi lañ koy jëlee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yonante bi musul julli julli googa ixlaas yi ñuy jàng junni yoon joxe naa ci exemple démb jàng ixlaas baax na mais bu ñu ko tënkee ci guddi gi mbaa tënk ko ci bis bi loola moo ko indil bidaa ma jox ci exemple ne su fekkoon ni dangaa dem liggéeyi kër gi ñu togg ceebu jën wala ceebu yàpp bu rafet neex lool séddale bool yi bool amul xool-xool amuñu bool ñu yëkkati deux cent jox ko benn xale ne ko dawal ci bitig ba jënd benn potu sàmbar mu daw jënd benn pot sàmbar bu bees indi ñu tibbal la ci ceeb teg ci ndawal upp ko bi nga ñëwee tàkkusaan ñu taajal la ko looy wax eh te nga may fonto pourtant potu sàmbar bu bees la lu ko la place biñ ko teg moo du place am ndax potu sàmbar du lekkukaay loolu rek mooy mooy expliquer exemple bu leer que ni li indi bi daa jëmmi jëf ji Lors le changé loola moo ko pujirim. raay bopp jirim yonent bi waxul nañu raay bopp jirim dafa ni nañu yar jirim nañu ko dimbale ci lekk dimbale ko ci naan dimbale ko ci sol jox ko dëkkuwaay mu ne ana wa kaafilul yatim fil janna ka man ak képp ko xam ne da ngay yar jirim man ak yow àjjana la ni mel Baram bu mag bi mooy muhammad bi ci top mooy yow kon jirim boo jël di ko fayal mu jàng di ko xottil yére di ko toppatoo jaamu yàlla gënu koo rëy mais bàyyi ba bi si tamxarit ñëw di raay bopp rek lu muy jëriñ lu muy jëriñ kon loolu du mbir mi bis bi ñu taamu na ci wala ñu war a dem seeti borom xam-xam jubluwaay bi mooy nu ci la dee nañu seeti suñuy borom xam-xam ñu fàttali ñu Karbala moo tax bu we tamxarit ñëwee rajo yëpp Karbala la ñuy nettali nan la ñu reyee ni fan la jaar waykat yi way gaa yi tëgg affaire yi firikat yi firi te jullit kenn waru koo fàttali naqar yooyu moo indi su ma ko toppoon ba mu jeex li ci des buñ demee ci xutba bi incha allah dinañ ko dégg bu neexee yàlla